salaamaaleykum ami téléspectateur Feeling Dakar TV ñu safoo di ñu seetaan ak fépp fu am nga nekk ci àdduna bi rek aku ci nekk fekk nañ la fa toog di la bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci àdduna bi yëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñoo ngi fii yëmbal ASECNA daal fi fekk suñu yaay di yaayu Cheikh Niass nga xamante ne nii dafa génnoon àdduna mu nekkoon lu metti lool lool loolu dama koy bàyyi rek maman mu daal di nuyoo suñu yaay lay bu baax baax. maa lay fay bu baax leen nuyu yéen ñëpp waa Dakar Feeling leen jaajëfal ak naaju tàng yu yéen dox di nuyu baax di leen fay nuyoo. waaw maman Cheikh Niass nekkoon sa doom. Hmm. newoon fee ci extérieur daan daan dooleem di liggéey. Hmm. daal di ñëw fii Sénégal ànd ak doomam. ah daal di joteeg policiers yi d'après les informations. Mhm. ñu ne policiers yee mhm. ne du policiers yi. dafa mhm. amee woon corona. ñu bëggoon nga leeral lañu ci loolu. <laughs> loolu day wax dëgg yàlla ñoom ñu ko war war ñoom gàcce ndaxte ku ne xam na ni ñoom ñoo ko rey. policiers yi waaw. barki démb bu rek waaw ji mu nekkoon ci biir bi xam ñu ma kon benn chambre moom nee woon bi su ma génnee danaa wax li am bu mu génnee waa Walfadjri ñoo ko évité woon ak xadime yi dem. waxoon lu ñëpp dégg lu leer nañ si Agnès dara ko te si t bi xam ne ko doon dóore ba mu faatu ma ngi ne ci biir ma denc dóor dóor ya ak nam woon maak deret ya ma ngi ne ci biir bi waaw mi ngi fii ci biir mi ngi ci biir yóbbu naa wal fajari adduna yëpp gis nañ ko bal la juuf loo xam bi mu génnee wax na lu ñëpp dégg ñoom ñoo ko dóor ba mu denc ko sa wañ nga ko yóbbu fee hôpital ndax nee nañ kaa dóor a dóor a dóor a dóor ba ginnaaw gi dagg ñu yóbbu ci benn semble boo xamante ni paqos bu ndaw bu lëndëm këriis te Cheikh Niass moo jiitu nee na ñu jël nit ñi teg ci kawam teg ci kawam nee na ba bañ tiim Cheikh nee xam ca bët bañ ba ñu yowoo nee na Cheikh tànk dafa neewi ak biir bi xam naa loolu yaa metti nee na ba mu wàcc liggéey nee na maa gis ma leen kii wàcc liggéey nee na kon jàppandi ko génnee ci laa bokk waaw waaw te ñoom ñu ni dafa am koy naa amee jabet dara amu ci yàlla nag mooy li la doomu aadama mooy àtte yàlla àtte na lépp ba ñëpp xam ni ñoom ñoo ko ci kaso bi ah waaye nag eh, rey kenn la moo ko yow ki sàkk bakkan teg nu yëg mooy jël waaye nit ak i noppam di toroxal doomu aadama ba bakkanam wàcc yàlla gis na leen te comme li xa di wax rek yàlla am na de yéen maa ne moom dóor nag ak waxta moom yàlla ak ña ca laal ñépp nag maa ngi julli ci yàlla di ñaan ku ca laal rek yal na yàlla weer yàlla na yàlla teg mbugulum àdduna ba àllaaxira tu teggee ko waaw ba pincum yàlla nag ndax dañ maa tooñ tooñ ki ñu rey waaw te def leen dara muy carte grise yemal na seex mu jël si ko ci kër gi moom tam ñoom ku ñu jàpp rek nga génnee xaalis wala ñu la saaka la pexe tooñ nañ ko ray ko ray nag yàlla ma ko yooyoo maa jéglu sax ci wax ji nag waaw jël bakkan yàllaa ko moom mais doomu aadama waaye nag comme yaayam man defam fit moom ah ba naa ko yàlla yàlla man a atte na ma yàlla atteeg moom te nag du ma ko bàyyee ñaan mukk baaba dal waaw ndax dafa def lu mettee méttee métti lu métti tax du ko fàtte ku ne mën naa fàtte waaye man jur seex ñu tuma fàtte seex dañ laa woo waaw bañ njëkkee dem. Mm-hmm. dañ sax kenn du ko gis. ndax yaayam du gis. doo man ak jabaram ak bàjjan bi fi nekkoon ñëpp ñu demoon ak mag tànn euh, nijaay mi fi nekkoon. mais dañ leen kenn du ko gis ndax lan reyin waa ñaaw. mais xam boo fa yàggee bagage bi jàpp la dóor dóor yëpp day day kii. ah. yàlla gis na lépp yal yàlla saafara moo mën a àtte yàlla na àtte. wallaahi yaayaa maa jox naa ko yàlla. ak ku ca laal nag jox naa ko yàlla ndax métti boo dañ mu góom xool bu lu wér la. waaw moo toog suma taaw waaye moom dong la amoon ci góor moom dong la amoon ci góor wallaahi yàlla xam na ko xam nga ku matal dem mm. mais reyin waa ñaaw mm. doomu aadama tooñu defal dara ne ci dëggam nga di ko mettal di ko xool ñooñal boobu ba bakkanam wàcc ñaaw na ñaan la feebaroon dafa dara jotu ko ñoom ñoo ko rey. ñoo ko rey ci kaso ba. waaw. ndax nee mm-hmm. na mu nekkoon doomam bu góor daal ko jàppale daal ko dimbali macha allah tey ndeysaan mu daal di génn àdduna mu daal ko suñu li yaayam wax xool sa yaram dina daw parce que dafa metti li sama yaay di wax rek yaay suñu laalee doomam rek. butit ba. xool ñi am doom xam nañ. li wax ndeysaan dafay yëngatu. metti torop torop torop. li ma la wax rek góom bu lu wér bu abadan la. léegi yére bi yow yaa ko dama faa dem. Mhm. kii ba ñu ko woon na ñëw jël si ko muy samdi ma ajjuma mhm. ñu dem ñu jox ma mbuus gi fii yàlla di weer nag mbuus gi nga xam ne la yére ba nekk dañ koo dindi sànni ko mais dañ laa joxale mbuus gi ma ñëw ba set jaam bi war koo fóot mu mu mu tekki mbuus gi rek gis yére bi mu yuuxu mun ma tànn tàntu kaay xool. jaam bi war a fóot yére yi. Mm-hmm. fekk ni ko dóori seen liif yi ni mu daggee ci ginnaaw gi loolu la marqué ci set bi. par nañu ko ci benn néeg boo xamante ni moom moo lekk première ñëpp ñëw tegu ci kawam. information yi kan moo la ko jox. nekkoon na moom ci benn chambre fekk lépp. mais mi ko gis. moom gis na ko lu ci man moo génn ko wal fajari émission bi demoon xale mi demoon na. moo la lépp fekk ñu xamoon lépp nag ndax seex dara jotu ko ndax dafa ñëw mardi ca ngoon dem duggi reer ñu togg reer bët set euh, di àllarba comme noonu mu xëy alxames nga maa ngi dem marché bés jëli xaalis mhm. ndax maire yi war a màggal yi dama war leen may paasu màggal te même Touba sax am na ñoo xam dama li jox ay añu màggal kooku dama loolu dara jotu ko fii lañ ko jàppe fii commissariat bu Cheikh dafa jàngi ah, dafa ci maam la nekk day jàngi mhm. moom maam bi jur yaayam moo ko yar fa nekk fi Kër jotu ko ñoom daal yàlla weer na leen waaw léegi yow man ñoom ku ma xeex ak ñoom ndax dëgg sa boo ko bëggee wax télé ñu ñu ñu ñu ni la baax na baax na baax na gouvernement ku na xeex moom ñoom xanaa jox leen yàlla sama borom bi yàlla wax na ma fàttiwu dara mooy borom bët bu rëy bi wallaahi ñu laa ko jox du ma noppee ñaan nag sama doom ji ku ko ku ca laal rek yal na yàlla toroxal la àddina ak àllaaxira barke Seexu Tijaan na trop trop doon bi nga xam ne la dimbali ah boo bëggee fàttali ko rek sa rongoñ dafay sotteeku ñu daan ànd ak Cheikh nekkul fële extérieur ba xam ñoom ñu lay nemmeeku ñu yónnee ay xaalis. comme waaw xam nga jamono neexut xam naa buñ bëggee man man du fa àgg mais ne wax dëgg yàlla nag euh, surtout ki ñuy wax As Malick ki mu tuddee doom bu góor bi nekk France waaw kooku moom yàlla ko yàlla fal cat waaw moom fàttewul wallaahi bàyyuma benn yoon ah ñu seet xam naa jamono neexut rek dañ nga bëgg mais doo moo neexut waaw. non ak préparation tabaski bi ah. Mhm. mu nekkoon sa doom comme li nga wax ne kon benn bu góor daal la jàppale ak tabaski bi li nga xamante ne nii ñëw ba pare te chaque événement Cheikh daf la daal jàppale daal la yónnee daa war na mu dara dëgg la sax lépp yàlla boo ko yore. Mhm. ah tey gisoo ko. Mhm. heure bi daan fekk nga jënd say bagage jënd ak lépp lan nga yëg ma wax nga dem gis ko Cheikh. metti rek waaye dala ci yàlla.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 coora yàlla mënoon na yónni ay malaaykaam ñu daal lay jël. waaw dafa seetaan def ko xam nga ndeysaan ba xotti yéeram yow jotoo lu dul jot koor rek xamoo sa doom. طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع waaw sama yaay jotaay bi ko jàppale parce que dafa amoon doom bu ko doon jàppale gars yi policiers yi jàpp si prison bi ah dégg nga li mu wax ci nekkam ndawal si prison bi moo ko gis. Ah, waaw li koy dóor mënul àtte parce que su àtte woon moom mënul ko ci boole. Mm-hmm. di ko dóor ko dóor mais sax ba mu génn àdduna. Mm-hmm. yaayam li mu wax biir bi funki. Mm-hmm. te yaayam nee na moom am na ay preuve parce que. jërë bi moom xam naa bala ñoo dem ñu ko génneel maa ngi leen di ñaan rek ngeen jàppale ma sama maman bi bu baax parce que dana am xar tabaski korite ndeysaan daawul na mu dara parce que Cheikh daf fee bàyyi ay doom ay fii ay ay ay sœur ah yaay mi koy wax sànq am na benn magam ndeysaan bu génn àdduna lépp rek moom mu uuf leen yor leen ñu gestu ko jàppale ko moo ngi fii yëmbal ci aserna te yàlla tax parce que gisatul Cheikh te ku dem doo ñëwaat du ko gisati mu ko xanaa moo koy fekk bi te yàlla yeex mu nekk lu metti torop torop yéen tamit di ngeen di def di ci bàyyi xel àdduna amul solo jàpp doomu jàmbur def ko nii mm-hmm. ah, yaayam nee na mënul mënul plainte koo ko jox voilà lu tax mënul plainte mooy kan la koy jox mhm. su génnee ci tali bi tey bëgg a wax ñu ne ko demal toog ah, wala su plainte ñu ne ko gaañu na bu yàgg mhm. léegi mhm. ay dossier am dañ koy jël teg ko fële tamit dañ ko geesuwaat na ma metti na ma sax torop waaye bàyyi rek sama moom ma fàttewul dara te mën a faj lépp moom laa ko bàyyal mu ngi France ñoom ñaar ñoo nekkaloon est-ce que tamit dañ ko yàgg eenal ah, wala ñu soupçonné ko wala dara parce que nit koo xam ne deful dara tamit ñu jël ko yóbbu ko prison di ko sonal ah ak prison ni mu méttee ah moom ko sa nekkul mooy fanaan di ko méttital di ko méttital ba mu génn àdduna tamit pour man dañ ko eenal wala leneen. du eenal ndax seex ba mu tukkee léegi mat na ñaar fukki mais benn la ma sa ñëwee ak ñëw daaw bi daaw jéeg. ñëw defi ñaari weer mook soxna si. ñaari weer waaw ak bi mu ñëwaatee nii doon màggal si. mais da nga waaw waaw guddi. ñu koy wax dëgg yàlla ah yaa ma ne ma ñàkk xol waaye ah jox naa ko yàlla de billaahi ak fu ma nekk jox naa ko yàlla waaw jox naa ko yàlla. ndax rey dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar waaw kooku moom mooy laas rey ah yu soxor yu métti xanaa mu xalaat xalaatul ñoom dana jël bakkan doomu aadama bakkan boo xam ñu bari ci ginnaawam. mu dagg bu mu gàcc yu baree baree bare te la am jom te la tukki takk ndigam. booba de xale la de. papa gaañu la papa gaañu la. <laughs> waaw waaw ndax boobu maa ngi luye mu ma lii laa bëggoon jënd dëkkal ci <laughs> daa ni ma sama yaay xam naa lema ñibbi si toog nag ah ma ne ko noo toogee yow yaa ngi am jabar France mu ni ma ah damay ñëw def juróom benn weer fii dem defee juróom benn weer mais dem yàgg moom bàyyi naa ko hmm. Mm-hmm. yàlla mooy defar yàlla mooy kun yàlla mooy rey ah, mm-hmm. mm-hmm. ma sax laa jël la bu rayal kenn nit ki ba yàlla suñu borom jël rek jël walaay léegi jamono dafa doy ba da ngay génn ñu daan lay doo xam ah. sa buntu. na waar doy na waar fi mu nekk nii moom. laahi mu koy doy na waar. xanaa muñ koy moytu rek. lu baree bare gàttal sa tànk waaw waaw. Mm-hmm. ndax moom da ngay génn mi tamit ñu rey nañ nit da ngay gis xarit bu rey xaritam ah nga rey sa sa soxna wala sa gel dafa doy waar. Mm-hmm. dafa doy waar trop. doy na waar lool. sàcc xale yi tamit ëpp na ëpp na moom daal. surtout moytu rek moytu rek. Mhm. ma gis fi mu nekk nii man xaw ma ko wax dëgg yàlla. ah nga dem ba lii am tey. dëkku jàmm la. ah dëkku salaam la mais léegi da ah, si li may wax tey leen xale yi. ah waaw ah, ah, mi sax soo moytu dañuy ngi noonu. mi ngi noonu. ah bon su xamoon ne su génnee dafay am problème boobu ñu yóbbu ko. wallaay kon kër du génn wallaay du génn keroog. tey tey tey tey. wallaay wallaay. amiin yaa rabbi. sallallahu alayhi wa sallam ñu koy xippee àjjana rek incha allah. ndax ku ñu boobu moom. Mm. yow dafoo waxoo. Mm. ñu rey ci loolu dara. ñaaw na ñaaw na trop trop trop. ndax waa ji wax na ko nee a seex lu tax dugal ko ci ñi nga fan ñi nga xamante ni ñaa ci kaso yo te defuñu dara seex deful kirim deful dara reyu nit sàccul jaay yàmba deful lenn ñu jël ko rek pamte pamtee ko ah, waaw waaw waaw leen sant leen gërëm rek leen ñaanal ndax naaju tàng wi ngeen jóge Dakar ñëw di ma seetsi ah amu seen pay yàlla mi pay fay nag yàlla fay ngeen gi fay yàlla sàmm leen aar leen musal leen kàttan yàlla ku mbaaxam barke Seexu Tijaan waaw. seetaan film Dakar yaram yëpp daw na ndax dafa metti trop trop trop benn doomu góor yoo xam ne benn la. a daan jàppale daan na dimbali di daan koy ah. ko dóor prison bi ni fa dund yëpp. oh ko di ko teg ay nit ci kawam. Uh-huh. xamul loolu heure uh-huh. la xam liggéey. wallaahi jaamu yàlla doon taalibe Cheikh. wallaahi day nekk tëfi mu metti lool lool mais lépp rek lañu ko delloo. yàlla suñu borom yi dinañ jox